asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 18 février 2020 mille ñëw ak yéen ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb la record wala Leewtoo TV bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la moom la mu xëy ñëw ñaar la ñu xëy wan ku nekk yaa nga takk say lunette muy diggante Yaxya Joob Yékini ancien roi des arènes bi fi nekkoon ak kan ki nga xam ne mooy docteur Alioune Sarr mi jiite tey làmb ji mu mel ni ki nag ñoom ñaar daal li yëglikaay bi xëy tey wane ci xëtam mu njëkk mu mel ni ki nag Yékini daal nañ boo bëggee dégg dëgg moom diggante ak CNC bi nga xam ne ñoree lamb ji bu dee sëy la moom daa mel ni mu ngay xeeñu tas tas daal la gën a jege fi mu nekk nii ni ab ànd yëglikaay bi nag ne li ko waral lenn la maanaam réunion ya Yékini du ko teewee la ca des mooy ay critique am jëmee ci instance bi daal daa mel ni xaw naa bare ba nga xam ne daal fi mu nekk ni moom daa mel ni daal bàyyi leen wala sëy ba tas daal lañu gën a jege ni ab ànd sunu làmb xëy tey ñëw wan ñu lu mel ni ki ñooñu keneen koo xam ne nag moom ab sëy bu doon daa dox diggante mag waa Gàmbi wala ñu mës a sëy daa mel ni tas na wala tas ga moom da caa sax boole ñaan yàlla dootuñu sëy ba ilaa yow mi diini muy bàyyi ma njoon ak waa Gàmbi nee ak ay milliards bees ko ko takk ngemb naan day wàcc biir Gàmbi naan day bëree ne kooku moom lépp ko ko gënal waaye xalaat moom defatu ko ko ñëw na tamit lu yaatoo yaatu ci carrière am ak li nga xam ne nii moo di caaroy ak Xaadim Njaay ma nga xam ne nii moo fa nekkoon di seen mag ak ña nga xam ne nii mooy ku mel ni ki Ousmane Diop ak moom Issa ak Issa Pouy ak moom Xaadim Njaay numéro 2 ak Baye Mandione ku nekk daal tey Baye ñëw na tey waxtaan wu yaatoo yaatu daal la xëy tey ko ak yëglikaay sunu làmb mu mel ni ki daal tey bàyyi ma njoon moom la mu yaatal xaw naa bëri ba yegg ci lool lool lool waxtaan wu yaatoo yaat ku dem ca biir yëglikaay moom da nga ko fa fekk leneen loo xam ne tamit wala ñeneen ñoo xam ne ni moom seen ab sëy day bees ñu koy door a takk muy diggante ka nga xam ne nii moo di laay njombor Balla juuf kanji ak Papa Sow mu mel ni kon écrit bi bés booba juddu moom di lu bees teq boo bëggee dëggi dëgg daal yëglikaay bi ne day leen di xaar dana metti de mission boo xam ne daal mission bu diis a diis a diis mooy xaar laay njombor Balla Diouf ak Kandji mission ba nag li leer ba leer mooy le 5 avril seen digganteeg Siteu di lu bees loo xam ne ni moom lañ fas yéenee jëm ci ab combat ka nga xam ne nag moom lañ njëkkoon a nekkal wala moom la ñu njëkkoon a bokkal ab écrit muy Gris Bordeaux Gris Bordeaux nag moom yëglekaay bi ne na daal li leer ba leer digganteem ak Boy Niang doxees na ko fay ko juróom fukki million Gris na leen lem leen seen juróom fukki million jëluma ko tey suba waxi noppi xalaatumaa jàkkaarloog Boy Niang ñu may fay 50 millions Gris na du ko def di neex du ko def di naqari waxam yëglikaay ba ñëw na ca keneen koo xam ne nii moom jël na avance wala mu déggoo ci combat muy Modou Lo yëglikaay bi ne na nag li leer ba leer moom sol nay dàllam demati ci réewum eh, Donald Trump ma maanaam des États-Unis d'Amérique yëglikaay bi xëy ñëw wan ñu ko ci aw photo mu ànd ak ki nga xam ne nii moo di Prince Sissoko Prince Sissoko moomu nag ca Leewtoo TV moom bu ngeen yeboo xaar ko fa ndax nag wax na fa ay waxam yu leer nañ ci combat yi nga xam ne nii taxawal na ko moo xam fëgala ak ki nga xam ne nii mooy armée la wala beneen ba ca di móot ja ak caat yëpp ñëw na ca waaye itam ñëw na ci ki nga xam ne moom am na ko te jàpp na ne mois de juillet da koy bëreel muy Sa Thiès rakk ki Balla Gaye nee na nag dox na diggante mag ki nga xam ne nii moo di garga mboose ba fay garga lu ëpp lañ ko fayoon bi mujjee bëreeg Moussa waaye garga nanguut nee na Yékini Senior itam wax yu kenn xamul daal la koy dox di wax waaye moom jàpp na ne daal moom prince moom li leer ba leer moom Sa Thiès moom dana ko bëreel bu saison bay tëj magi Sa di Balla gay 2 bu ñu demee ci record moom comme ba ak Balla Gaye 2 ak Boy Niang bokk yëglikaay ba ñëw na ca tey mu mel ni ki nag ko daal daa mel ni moom lañ ca programme wala moo ci mujj am ndax nag promoteur ba ko doon dox moom muy jamaykee daa mel ni ku ci ne ci ñaari kaay yi dem benn yoon la def ci yow dellu si waatul yëglikaay bi xëy tey gëstu loolu ci xalim ak Abu Ndour mu mel ni ki Boy Niang moom la muy leeral nen liy leer ba leer daal jàppal jamaykee ñëw na wax na leen waaye ñëwee wax leen tamit daa mel ni daal booba lañ ko gëj a yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci lu mel ni ki noonu wax ca muy combat boo xam ne daal fi mu nekk nii wax ja bari na ca day taxaw ak du taxaw ku koy tëgg ak ku ko dul tëgg bu nu continuer nag ñun dañuy dem ba tey fa nga xam ne nii nag mooy ca cees ak làmb ja nga xam ne moo fa nar a am nar a dox ci diggante laay goote ak daa mu mel ni kii nag drapeau Idi Thiam bu inaak waa ba moom nar naa tàng ndax bu dee laay goote la moom nee na daa jàppal ni bis boo duggee biir Thiès moom fay xaar dina métti bëre piir xeex piir boo ko mënul boo yeboo nga lem say kàggu te ñibbiwaat te xam ne moom nar naa métti ci yow daane ko man day wax ja la muy bëri bëri ak li ngay ratatati di ko wax jàppal ne man moom li leer ba leer moom pression duma ko bëree de jàppal loolu waaye rigueur moom di nga ko gis ba mu doy sëkk sëkk sëkk sëkk loolu mooy ay waxam may sa puy moom di di superviseur moom ña muy waxal mooy encadré lu mbër yi nee na leen daal yéen ñi encadré mbër yi war ngeen a gën a setal seen mbir te tem di ko jéem a teg ci aw yoon loolu mooy ay waxam keneen koo xam ne ni moom ay mbiram ba saison bi ubbeekoo ba tey teguwut ci aw yoon wala gañeegulub tournoi mooy góor a soog mu mel ni ki moom kaam fi mu nekk ni moom critique def na ko lool ba yegg ca loolu mooy ay waxi ki nga xam ne ni wala boog moo di gëstu boo xam ne yëglikaay bi di sunu làmb ñëw na tey wan ñu ko ki kaam critiqueul moom mooy ordinateur mu nga ca fa nga xam ne nii moo di record mu nga ca fa nga xam ne nii moo di sunu làmb ak ay tournois ya nga xam ne mu ngi koy gañe di dem waaye diggante bébé Saloum ak Franc itam day nar naa tàng mu mel ni ki nag ñoom ñaar moom jàppal seen combat ba ñu jëm moom le 8 mars moom defante ba teel naa commencé seen bër ki démb ku nekk yaa ngay dig sa morom lu méttee métti xeex maanaam ba mu tar ñu dóor a bëri diggante bébé saalum ak ka nga xam ne nii moo di Franc mu mel ni ki yàgg maar moom bëri dóor la ñu wax waaye nga yaakaar ni bëri ndaxte la père Maxime Bargane doon wax ndax du ci am maar buñ la séntootee gauche na nga jàdd boo signalé droite demal góos bëre noonu la naxante la de du xeexu mbedd moo ko waa Leewtoo TV leen nuyu leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndaloon ak yéen si jàngatu arène bi ngi di la naan sa rose baax na merci Ndeye Koumba Fall maa ngi lay delloo béggee waa rose bi nag xam nga rek du mën a ñàkk Babacar bu Modou la ma borom Petersen ki ma soloon bërki démb mook mag jom war Diouf ñoo génnaat fii tey ci lakos bi faramaareen yooyu nekk Petersen nga xam ne kuy jaay yére fii mu nekk nii moom ñooy sa number one waaw yow sa pari baax na waaw te la ñu am match nag match bu rëy Babacar dañu ñaanal ak Dortmund te si vingtième ci euh, huitième de finale Ligue des champions yi waaw ñaanal leen dafaw mu am parce que Idrissa Gueye suñu doom la wala bokk suñu frère la doomu réew mi la kon laa bugga wax kon yàlla na ko yàlla may tey ndam parce que tamit lu gën a gën a yey ku xëccoog Real moom da ngay ñàkk bu ngeen football ak Real daal ku ngeen football yàlla na ngeen ko gagné. Amin Babacar ni ñëw nag si euh, lamb sunu lamb sunu lamb moom dafa xëy di wax naan euh, bu njëkk bi dëpp buñ ko tapee euh, nekk membre au niveau du CNG ñëwatul réunion te en plus dafay génn des fois aussi di di di waroo ak le CNG di doxale nee ñu nag est-ce que duñ def divorce tàkkali ko diggante CNG ak ki nga xam ni mooy ya Jóob Yékini. waaw maanaam divorce sëy ba bañatee am loolu de dama naan est jar na ko. parce que damay jàpp ne tey nday nday gumba ah, li nekk mooy kuréel même boo ci bokkee d'accord xëy na li xel gën a nangu mooy la nga leen di critiquer comme da ngay bokk ci réunion yi te copte boo ko mënee parce que yow la ñu choisir ba ko ndax yaakaar naa yax ya bu ko nangu koon kenn fa dugal comme dugg na fa nag xëy am na yenn xalaat yoo xam ne ak yenn wax yoo xam ne nii xëy dina gën jaadu ci kiy déglu que mu dem ba ci réunion yi comme moom kenn du la ko interdire nga ñëw wax leen yow sa xalaat li nga xam yaa ngi dégg mais nag des fois tamit ku mel ni Babacar dékk la micro laaj la sa avis wala Abu Nduur dékk la dictaphone wala Dembele wala keneen wala Ndeye Coumba Fall di nga wax sa xalaat xëy na moo tax des fois mu génn wax yenn wax yi waaye yaakaar naa ne du question mu manqué leen respect wala bañ leen a jox cër ndax Yékini itam euh, gis xamewuñ ko ci loolu daal mais nag xëy na nag bu journaliste bi toogee ak yow respect ba nga koy jox dina tax boo boo ko laajee xalaat maanaam bu la laajee xalaat di ko répondre ci question yi mu laaj mais réponse boo xam ne nii lu jaaru lay doon mais xëy na yaakaaru ma ne xëy na pour classe la wala pour nangam nangam parce que Yékini yaakaar naa ne ñàkkul fu la ñàkk fu la bu toll ni su bëggee dem dina fa toog naan ay ni naan defe naa wan nga ko waxal lépp sauf daa ñàkk fayda xamuñu ko ci loolu durant carrière ba tey mu bàyyi làmb ñu jiite làmb ja tamit lu mel noonu la ñu gis si ñoom muy docteur Alioune Sarr nekkul nit ku ñàkk fayda nit la ko mën a négocier nag mais ça ne Babacar na ngi ñëw nag si combat Papa Sow ak Siteu nee ñu nag ginnaaw bu mu taxawalee bureau bi si euh, académie euh, wrestling bi euh, mais écurie bi mu créé bees nee ñu nag copté na nag ay coach ki sax mel ni mooy laay ñoomboon bi coach principal Bala Diouf nekk resp di gérer respon entraîneur lutte avec frappe ak ki nga xam ne mooy kanji muy boxe moo yor boxe bi nee ñoom ñett ñëpp est-ce que daañu am assez de de muscle pour Euh, gagné mission bi nga xam ni moom la Papa war a dem. Babacar mission mission bu méttee leen di xaar. pour le cinq avril. parce que nag écurie bu bees la entre entraîneur yoo xam ne ni ñooy njëkk génn xëy na Kandji sax am na expérience parce que yàgg na entraîné Papa Sow yaa ngi dégg mais Laye Ndiombor xëy comme ñu xam ne nommé nañ ko indi maanaam définitivement ci écurie ah da xaar naa mu ngi door a am ci li ñu xam Balla Diouf itam am na vécu bu baax a baax maanaam ñooñu ñëpp ay techniciens lañu. ñaa ngi dégg mais nag euh, technicien bi bëree ak technicien bi entraîné am nañ différence parce que entraînement wala entraîneur beneen beneen beneen dund la beneen liggéey la am na mission boo xam ne nag mission bu diis la moom parce que première sortie kan la Papa Sow la ku muy jàkkaarlool Siteu Balla Diouf a koy indi kànjee koy indi Laay Njombor a koy indi en tant que ay coach ah ay boromee xam-xam lañ de loolu moom kon kenn du ko werante waaye nag dañu am adversaire de taille muy Siteu mais comme li may wax rek nañu yónni yàgg rek bala 5 avril ñu xool yàlla nañ ko fekkete tal ko ba xam luy luy xew. Babacar journal aussi mu ngi xam ne ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux promoteur dama na ko seet bu mu euh, bëree ki nga xam ne mooy Boy Niang mais daal dafa rejeté nanguwul 50 millions yu ñu ko propose bu mu bëree Boy Niang Babacar. waaw jigante jaay jënd day moom lii laay jaay nga lii laay jënde moom coow waru faa bëri am na droit nag buñ ko proposé booy Niang fay ko 50 millions bu ko neexee mu ne du ma ko bëre su ko neexee mu jël ko waaye li li li ma xam daal mooy ñoom mbëri nañu xoolaat bu nañu revoiraat bu baax a baax situation yi yaa ngi dégg xoolaat bi mooy lan ah euh, lamb ji waxuñu ne taxaw na lamb ji mu ngi dox parce que mbër yaa ngi bëri date yi waaw chaque dimanche ak samedi ñu ngi bëri tournoi yaa ngi mel ni bu ma la ko waxati kon lamb ji mu ngi dox a xam ay Balla na ko jëlool du ko mais nag na xool bu baax a baax li nga xam ne nii mooy situation lamb ji xool moom situation boppam parce que tamit yaakaar naa ne Gris Bordeaux mu génn làmb la gën a jege ni mu des ci lamb kon nag moom daal mooy seet mooy choisir cëggal guyam a ngoom waaw Babacar ñu dem nag si ak baay ma Mandione def na interview bi rek ak journal euh, waa journaliste sunu lamb bi moom nee na ak ay milliards dootul bëreeti ki nga xam ne mooy Gàmbi Baye Foss borom Baye Foss waaw ma Mandione day loo ci bëri dégg mbër la mi nga xam ne lu nekk si moom da koy wax te loolu itam soxla nañ ko ci nit ak lu mën a xew moom li mu gëm lay génne wax ko jàpp na ne moom dootul bëre Gàmbi ak ay milliards duñ ko ko fayoon dootu dootu fa bëre yaa ngi dégg xëy na nag la mu fa jëlee combat euh, euh, mooy xoyantaan moo ko neexul ba tax mu génn foofu li am solo nag mooy dama ko la ma waxoon laay waxaat rek même bu fa bëreetul tamit li may wax mooy muy moom ak man ak yow rafetal suñu diggante ak waa Gàmbi ci communication ak lépp parce que Gàmbi ak Sénégal benn réew la ay tubaaba ñu tooñ lor ñu naan fii anglophone la fii francophone la mais ñun ñëpp on est des est si yaa ngi dégg lu ma lay wax ay fayak ay saarak ay juufak ay jàmmeek ki ngom ak yooyu nga fay fekk yaa ngi dégg te loolu nga ñu fekkaat fii Sénégal olof bi benn la kon ñoo bokk ndey ñoo bokk baay may profité di nuyu Gambien yëpp di leen ñaanal jàmm di ko saxu si ñoom rawatina ñoom Djibi Dra ñoom maanaam képp kuy Gambien daal Babacar a lay nuyu waaw su jógee nag sunu laam nañ dem fi nga xam ne moom mooy roko roko nee ñi combat Balla Gaye ak Boy Niang si yàqu la gën a jege ka ka defaat parce que nee nañu euh, ñaari mbër yi benn euh, promoteur bi ko war a dox muy Jamaïcain ñaari mbër yi yëpp dem na leen seeti mais beñoo la leen seeti te ay mbirum cachet moo tax combat mënu taxaw Babacar ah waa loo si mën a dégg daal kon <laughs> ma xam naa ne waaw combat boobu daal daa mel ni ak amam man dina ma jaaxal Balla ak Boy Niang ah dina doon lu ma jaaxal bu dee dina am li am solo nag mooy ah promoteur ba ñëw na benn yoon dellu si loolu nag comme comme am am na moom waaw kon daal la ma lay waxaat la lay waxoon rek nañu yónni yàgg ba xam fu mur yeey mujj rek waaw suñu demee nag si Leewtoo TV ak Leewtoo point net ni ngi euh, mi foofu point de presse bu Prince doon organisé démb foofu nag Prince wax na fa dressé na fa programme bi mu war a tëral si saison bi Babacar euh, si micro Leewtoo TV nee na aussi combat Sa Thiès Sa Thiès dina ko bëree le 19 juillet amaana mu nekk Gargamose wala mu nekk ki nga ni moom mooy euh, Yékini moom moom la moom la signé contrat pour mu bëre ak moom le 19 juillet wax na fa tamit programmation ak si association des promoteurs euh, authentiques loolu yëpp pour parce que tamit li am solo mooy la boo xam ne si làmb mu ngi doon def ay jéego ba yàlla def xëy na mu xaw a taxaw ñëwaat pour bëgg a continuer taxawal na ay combat yu neex te xam nga mu jëcaat làmb dàqu ko fëgg la armée waxi noppi tey ne am na avis

reporter yaag ñun ñu nekk si làmb yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay xajaloo bi daal amuluñu benn njariñ pour man li am solo nag nañuy toog di waxtaan waaye itam duñ ne kenn force di nga ànd ak diw doo ànd ak diw ku nekk ngay àndal yaa koy xool mu doy la ngay ànd ak moom waaye bu ñu ŋàññante rek te ku ci ne la nga séq ak sa morom te mu nekkoon lu rafet tey même bu réeroo amee del bàyyi xel ci lool parce que àddina amul solo te li yëpp day jeex lépp day jeex kon daal nay rafet daal moo gën ngeen nettali ba. waaw que moom moo am solo quoi moo am solo te ñoom promoteurs yi damay wax ne ñoom kenn amul seen fay parce que ñooy bayru làmb ji ñoom suñ fi nekkul làmb du am. parce que ñun ba ñu xamee làmb ba tey promoteurs yi génne xaalisam tëgg làmb làmb door a mën am kon ñooñ defe naa ne ñun bu ñu sañoon bu ñu ñëwee si làmb xiiroo du am ŋaayoo du am te lu ñu ci dugal dañ koy réussir parce que bu dul ñoom la ndey Kumba Fall mbir ma day daal di làng daar te bu làngee daar ci dee lay mujj. Babacar nag si Leewtoo point ñu xam ne ki nga xam ne mooy Modou dem na États-Unis depuis dimanche moom nag li nga wax combat dina am wala am waaye moom daal dem na États-Unis daal di daas fanaanal Babacar waaw noonu la ren day bett dégg naa ñu baal ma si baatu ren boobu waaye daal xam naa ne buñ waxee daas loolu la xalaat xëy nag day préparé diggante mag Ama day bañ dara bett ko waaw kon Modou mu nga États-Unis nañ ko xamee noonu Babacar nag si kàddu leen tàggoon leen jox dig daje suba incha mais balaa boobu ma nuyu suñu yaay meesoo nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu Asda ne déjà vraiment chéri Khadija Diallo depuis Italie nuyu gi nga xam ne maa ngi koy nuyu di ko ziar Babacar waaw di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm rek ah, comme ni nga ko waxee tamit suñu jur bu góor mu ngi moo fi nekk maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla yërëm yàlla yàlla defal ko gudd fan ak wér gi yaram barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam sama wayjur bu jigéen tamit yàlla na ko yàlla te taxaree ko aljana ak bépp julli bu tëdd ci suuf mu ngi ci suuf mooy profité di nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi ñuy suivre rawatina ñi nga xam ne nag dañuy topp suñuy vidéo review yi gis nga ibu bi da koy topp ñoom ah bari nañ daal Ndeye Coumba Fall Binta Kebe Elas Fall tuuti yaay Sarr moom waxatuñ ko moom chaque jour mu ngi ci amuñu fayam ak taalibe cheikh bi maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax waaw taalibe sëñ Bay si Abdou maa ngi koy béggee Adama Wad ah Adama Wage Abdou juuf ñoom ñëpp Madi Cissé Khalil kum ci mën a doon daal Babacar Cheikh Bass Adama. am kenn ku ne woon maa yow mu nga mu jël ñaareel de. waaw ma jël la ñaareel waa kooku non kooku ne ko man yow du mënoo nekk sama ñaareel sama jigéen nga waa xam naa dafa gis ñu toogaay bi rek moo tax mu wax loolu kooku daa ma yéene lu baax yéene lu baax mais nag loo ci mën a dégg euh, nañ la bàyyi rek ca fa nga ne jàppale la ci ñaanal la yàlla nga réussir ko loolu rek la ñu mën a def quoi waaw ñun nag <laughs> waaw ñaareel moom bëgg nañ ko bés dina ñëw xëy ñu am ko bu soobee suñu borom waaw di ña yaa ngi dina am aawo yaakaar naa mars la waxoon waaye nañ dem na ba mai di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaye waa Petersen du ma leen fàtte Mor Diouf Petersen maa ngi koy nuyu di nuyu rakkam sama turandoo Babacar bu Móodu Lama di Faramareen di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre nees borom karo yi Petersen ak Issa sama taximan bi Ndey Kumba